ñuy tënk tey mooy dañ ñëwoon tey fii rek ànd ak seen ministère du commerce mu invité ñu ñun boulanger yi ak acteurs yëpp mënuñu dañuy bëgg def lu ñuy wax mise à niveau parce que bu ngeen jàppee ni ba président de la République signé décret ba 22 77 depuis le 30 décembre dañoo amoon programme bu ñu tëraloon nii dañ koy dem dans chaque gox jàngal nit ñi waaye nag Covid bi ak mbas mi tax na kenn mënu koon def léegi nag saka mbas mi mi ngi xaw a def nii moo tax ñu ne commencé commencé lu ñuy wax benn séminaire fii à Dakar mais bañ koy def sax woo nañu waa région yi pour ñu def lu ñuy wax mise à niveau mën nañu xam euh, réglementation bi dañ ko war a appliquer ci gox yëpp réglementation bi mooy lan mooy ñun boulanger yi am na loo xam ne ay sas la war nañ def suñ déclaration war nañ ñu jox askan bi euh, mburu bu baax bu set nañ koy liggéey yooyu yëpp ñu ci réglementation bi waaye nag livrer mburu aussi dañ ko war a am anam ju set waaye yéen gis ngeen si dëkk bi fii nañuy livrer mburu oto mburu bu rombee ngeen ni oto mburu la pousse pousse bu rombee ngeen ni pousse pousse bi waaye yéen askan bi est-ce que d'accord ngeen di continuer di lekkee loolu di jënd loolu loolu lañuy bëgg nit ñi comprendre ko message boobu c'est pour la population ñu jàpp ne dafa dog tey ñu arrêté di dem ci boutique yi di gis ñu leen di livrer mburu si ay condition yu hygiénique ñu def ko loolu nag ñu ni kon nag sagam ñun ñoo diggee wax nit ñi toog leen ñu def leen ñu jox leen mburu bu baax kon nag jaadu na ñu am programme bu mel nii bu ministère xalaat ni projet jaay ma mburu loolu sëgam am na ñu ni kon bu ngeen toogee ñu livrer leen si mburu anam set même oto yi koy livrer décret bi daf leen wax charte yi ngeen ko def pousse pousse du livrer kenn du jël mbuus di livrer kenn du def dara loolu moo tax ñu ni kon loolu kon tey il faut que nit ñi xam ko il faut ñu lancer un alerte ba pare nag di invité ministère bi xamal ko ni ko nag jot na tey nga jàppale boulanger jàppale consommateurs yi seen sécurité alimentaire am na ñoo xam ne dañu bëgg lu rek génn seen buntu kër rek dugg si boutique jënd fa mburu loolu dafa war a dakk toog leen seen kër projet jaay mburu mi ngi fi woote leen jox leen mburu si anam yu sel anam yu baax loolu mooy sensibilisation bi loolu mooy programme bi waaye nag il faut ñu xam ni boulanger yi jàppandi ni bi ndox ministère taxaw na pour mettre leen au pas il faut ñu xam loolu livreur yi jàpp ni aussi lu leen neex def loolu dag na bu tukkee yu jàpp ni lu leen neex def loolu dana dak Sénégal incha allah loolu moo taxoon ñu ànd ak seen ministère du commerce bi di ko rafetlu pour ñu def formation bi mel